ñun moo wax la lu weer lu wér ñun duñ dem rencontre deux heures matin ak minuit ki zéro heure xamuñ yooyu ñun day naan dajji ne fàng ñëpp gis. ah mais vous êtes pour les concertations. non non du concertation consultation la. ah consultation. consultation dialogue oui ñett yëpp la ñuy dégg. ban ah, moo ci bu baax bi li may wax nii moom laay jàngale. xam moo tax ban moo ci bu baax bi. man li may wax man dama lay wax bi baax bi baax la Macky Sall jël consultation la wax. ok mais ñun dañoo bëgg mu public. maanaam ñëpp xam ne bés na nangam. Mhm. dañuy recevoir PRP di président de ci Fall ak ñooñam dañuy toog waxtaanee wala boog dañuy recevoir candidat yëpp lépp leer. Mhm. fii duñ fi def ay rencontre minuit quatre du matin. aw daa ku ko def moom moo la engagé mais ñun. newleel ci ñun duñ ne ci doxuñ ci loolu ñun day leer parce que ñun li dox xaaruñ ci ma dem ba xaaruñ ci ma sàmba dañoo ñun ñoo yëkkati suñu loxo ne mën nañ. Mhm. jël suñu alal def ci. j'en profite pour dire ceci parce dama koy dégg di ko gars yi di ko ngun-ngunee ci suuf. Mm-hmm. laaju ñu ñaar dërëm pour li liñ ci def ci alal sunu alal la.